yaag sa yaay wala sa jabar mu lay wéttali mm-hmm. loolu dafa am solo foog nit ñi di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax waaye maa seedeel ngóone loo xamante ne xaw ma ko si moom mm-hmm. wala la ma koy waxal damay dégg ñeneen di ko wax tey ji ma ñëw fekk suppose ñuy wax ni ngóone dafay jaayee diw yoo xamante ne baaxul rek automatiquement ma ñëw ne waa fekkee naa fu mu ko jaayee nit nit ko ko yaramam lii ak lii te xam li dara dara mais si TikTok bi dara dara leeru ma <laughs> da ngay gis jaaykatu diw yi di yàqante chaque jour. Mm-hmm. loolu dafa dafa nekk loo xamante ne lu lu lu jéggi dayoo la. Mm-hmm. doo doo comprendre sax aw saw léegi ci fi waxtu wi nii fu ñuy du ñuy attaqué man xam ma dama yàqam day fa day fee di weer ak yooyu. mais yow yaay tracé rek foo foo bëgg foo joxoñ rek. <laughs> ma ma ma jaarandi foofu. ah nga ñëw ci fee di weer bi kon. waaw ah, ba fële li may indi tey fee ci diwaanu Ngéeñeen. ngay ñeen la la la xewe benn maanaam mooy nijaayu xale yi xale yi naka dañu lab ci benn dex bu nekkoon foofu ñaar lañu mm-hmm. ñoo bokk papa ñaari xale yi mais xale yi dañoo lab te waa dëkk ba bi ñuy secourir xale yi wala bi ñu leen di génnee woowuñu sapeur wala police dañu génnee xale yi automatiquement yóbbu leen ci morgo ba ci seen ndigalu nijaay nag ñu de mu denc xale yi sa sans mm-hmm. autorisation papa yi xale yi papa yi xale yi nag loolu la koy toppee ci yoon ba ki nga xamante mooy procureur bi mm-hmm. di di wax ni nañu nañu nañu sulliwaat ñaari koor yooyu parce que amul amuñu seen autorisation papa te nit bu deewee. Euh, da ngay dem ut certificat de yooyu ñoom jaaruñu foofu yëpp dañoo jël xale yi rek suul mu nekk loo xamante ne lu dooy waar la. loolu moom andi naa ko ci suba gi. <laughs> yéeme na trop franchement yéeme na lool aale li nga indi yéeme na mais nag xam naa nijaay ji xër ci jëmmi boppam la def ne comme que ñi man ak seen yaay ñoo bokk ndey ak baay rek am naa droit def loolu mais aussi tamit doom moom. ay woy waajuram ñoom ñoo am dogal ci moom mm. ak loo bokk-bokk ak papaam wala ak yaayam yaa ngi comprendre mm. ki nga xamante ne moom moo ko jur ci geñoom kooku moom moo war a décider des fois nga gis nit gaañu ñu ne dañuy xaar papaam ñëw mm. wala dañuy xaar ñi nga xamante ne ñoom ñoo di euh, ay doomam wala dara ñi nga xam ne ñoo gën a sës ci moom si ñu door a denc parce que ñoom mën nga denc foofu ñu ne bëgguñ woon ñu denc foofu suñu mhm. doom fële lañ bëggoon ñu denc ko suñu doom kon donc li mu def kii mhm. mais ki ñu xas suul ba pare pour man jaratul ñuy sulli di suulu ji waat ah mais awa pour man euh, loolu moom jar na ko parce que dafa nekk dafa nekk loo xam ne ne euh, dafa dafa louche parce que mënoo jël doomu jàmbur nga ne lab na côté boobu moom c'est bien parce que mënoo toog di ñaari xale yëpp la ñaari xale ñaari xale nga toog naan da ngay xaar sëpp sapeur lu ñu mën a def mooy dimbali leen sauver leen teg leen bu ñu leen génnee xale ba dimbali leen mais munoo xool say say mbokk nekk ci biir ndox mi nga ba seet nga di leen seetaan ñu dee mën nga leen sauver génnee teg. woo ñi nga xam ne ñoom ñooy sapeur ñu def seen i liggéey mhm. man côté boobu pour man nit bu deewee ci anam yu nga xam ne wàllum lakk wàllum accident wala lu mel ne ci lu ndox loolu yaakaar naa ne wàllum yoon mhm. ñoom ñoo ci war a dox ay jéego mhm. kon nag bi ñu sauvé xale yi ba teg leen lu ñu waroon njëkk dem mooy woo li nga xam ne moom mooy police woo sapeur woo ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy ay waajuram ñoom ñoo ko gis ñu ñëw assister mën a set saytu ko parce que tamit dañoo ne xale yi dañoo lab ci ndox bi la ñu deewee mais est-ce que réellement ca ndox ma la deewee est que xale yi deewee ñu feneen wala beneen dal bi jël leen duggal leen ci ndox mi parce que fii lu ne am na fi. Mm-hmm. nit da ngay bokk moom fekk di jaaree na fenn ci suuf def ay sacrifice. Mm-hmm. wala def ay dara ñëw déggal ko ci ndox mi profito. Mm-hmm. parce que profito boobu xam nga dossier bi nekk ci wàllu boobu doo mais mel ne dafa mel ne genre profito man laa gis. da nga profité def li ngay def yëpp tëxëñ comme ne deena deena deena loolu du yoon. dama accord ñu suliwaat xale yi toog ndax rafetul. ni ki koor bu dee ba pare. ñu jël ko génneewaat ko. mais pour man loolu mooy yoon def autopsie bi xool ba xam lan moo ko rey mais dee boo xam ne nit ñi dee na rek ci ndox la dee nga patam patee patam patamee mhm. doomu jàmbur jël taxañ woowoo yoon mhm. woowoo police woowoo sapeur mën nga sauver boo sauver ba pare nga daal di nga daal di ñëw teg nga bàyyi yoon def li nga xam ne ne moom mooy liggéeyam mais profité jëm denc moom loolu rafetlu lu ma ko mhm. ah, aw sow li li li ji ngoone wax loolu tamit comme euh, euh, du ñu wax que ni comme suul nañ leen ba pare rek après garaaw non non yoon du doxalee noonu tey ji boo nekkee ak sa yaay si biir kër yéen ñaar ci biir kër sa yaay wàcc fa liggéey. Mhm. amoo droit jël ko rek dem suul déedéet. Mhm. da ngay dem woo médecin mu ñëw mu xool ko ñu def certificat de décès. loolu mhm. loolu c'est c'est forcé. nit bu gaañoo ci biir kër balaa nga koy génne di yóbbu wala nga koy suuli. loolu da ngay woo médecin mu xool ko constaté ko ba pare. parce que yenn xeetu génn àdduna yi bu ko doomu aadama génne àdduna. autopsie dafay am yoon par xale yi bi ñuy bi ñuy labee dañ leen waroon yóbbu ci morgue hôpital yi ñu defal leen autopsie. loolu man lu ma comprendre bi ñuy lab seen nijaay mu ngi fa taxaw. non peut du ko fekkee quoi parce que waa dëkk bi. mais moom leen jël te yëgle. ci ga ga benn gaal la buy kii ci ci dëkk bi moom moo kii suuf xale yi ñu gaañu si. mais pour xale ci biir gaal gi lañ nekkoon. la ñu nekkoon loolu ci ci li mooy li nga wax sànq rek. loolu la ñu mën a jàpp parce que loolu la ñu wax. parce que mënoo xam xale yi peut-être mën nañ leen buux ci biir. wala ñu bëmax leen comprendre nga. xawal mhm. xale yi deewee feneen ñu gi ñëwaat dugalaale ci ndox génnee dañu dañu ni jaay ji ak lu munti am. bu bokkee mhm. seen yaay ndey ak baay. Mhm. mu yar xale yi depuis ba ñuy di leen defal lépp. amul droit responsabilité waaw suul xale yi sans. peut-être que moo loolu moo papam mais sans ñu am euh, certificat de décès loolu mën mënta ne procureur li muy wax ni nañ dañ dem sulu ko loolu c'est forcé mhm. parce que moom yoon lay doxal mhm. dañuy xool bu ñu bu buñ sulu woon ah, parce que léegi ak moor moor bu mu mënti doon mhm. dañuy def autopsie léegi moom ak non noonu la loolu mooy yoon bu mënti doon parce que dañuy xool ba xam décès naturel la wala du décès naturel loolu loolu parce que suñu defee autopsie su fekkee ne xale yi dañu décédé avant que ñuy dugg si biir ñoom dinañ ko xam mais peut-être ñoom tamit dañuy jàpp rek xam nga suñu mbokk pël yi rek macha allah sama maam yi ñoom dañuy jàpp ne comme nit génnee àdduna loolu doo bàyyi mu yàgg ba pare xam nga côté yooyu dañuy jël li nga xam ne ne moom mooy nijaay presque moom mooy moom mu nekk loo xam ne ne ci famille bi ñëpp dañ koy respecté wala dara mhm. xam naa loolu tamit mën na tax mu jël engagement wam def parce que xam nga Sénégal dañu tàmm loolu nit bu deewee léegi mhm. duñ la may sax nga nooyi parce que nit ñu bëri tey suul nañ fi ay bakkan yoo xam ne deewuñu mhm. parce que da gis bu njëkk ba léegi sax la affaire yi commencé di changé ñuy woo docteur wala dara mais nit su xam nañu suul ko nit xam na sax ñu jël ko suul ko mais xam naa li ñuy def comme moom nijaayam la moom lay jël responsabilité am mhm. def li muy def te or ko ne léegi réew mi dafa doxeetul noonu lépp loo gis bu la dara arrivé police ak sapeur nga njëkk a contacter mhm. soo gisee nag ku nekk ci danger am nga droit li nga xam ne mooy nga sobee ko mhm. boo ko sobee nag nga sobee ko teg ko li ci des nag mooy nga woo wàllum yoon ndax nit ki doo bàyyi euh, muy dee wala nga seen ko muy lap boo ci mënee dara da koy jàppale avant ngay xaar sapeur mais doo taxaw téye say loxo ne da ngay xaar leneen li ci topp nag moom jël sa décision patam patamee suul sans certificat de décès sans nga aviser ay parents sans nga aviser benn autorité wala dara lool nag moom loolu dafa xaw a louche. dafa xaw a louche day na dafay xaw leneen mm-hmm. waroon na mën a du du du ku téléphone rek ngay woo nit ki ah sa doom yi kat dañoo nekkoon ci dex ki mm-hmm. ñàkk nañ fa seen bakkan mm-hmm. automatiquement da ngay toog nga moom mooy seen papa. Mhm. da ngay xaar mu mu ñëw. Mhm. beneen wax bi ciy topp mooy que nag. mu yabal la mu def loolu lépp mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi sa ginnaaw ñun sa kàddu la ñuy mhm. xaar. ñu ci ci nu ñuy dencee xale ak nu ñuy dencee xale yi. daf ko waroon wax papaay xale mais du ko sa dañu lab rek. après pare na si ñu ñu ñu mu jël dem dem dem suuli loolu dafa nekk loo xamante ne dafay doy waar parce que xale nit ku nekk danga am papa am yaay te donte sa sa sa waajur mi ngi dund rek kon bu ñàkk bakkan amee ci ay doomam li ñu war a wax mooy woo ko yëgal ko gannaaw bañ ko yëgalee ba pare it ñu laaj ko la mooy lan nga xamante waaw ci ci lan la lan mooy dogal bi daal mhm. lan la lan la ci namm ak nan la ko bëggee mhm. que ñu denc xale yi te buñ ko xaar mhm. wala nañ ko xaar ba mu ñëw ba mu ñëw ndax morgue am na waaw loolu loolu mooy yoon loolu mooy yoon man jox ko su fekkoon jox na ko autorisation kon du dem ne nañ nañ waaye dafa am dafa am ay kilifa ne ñu baal ma dañu xaw a gàtt xel de ñoom seen décision rek. moo leen te te nijaay xale yi nii jàpp naa ni bu jàngoon. Mm-hmm. li mu def nii du ko def. bu dee jàng na nag. li mu def nii du ko def quoi mm-hmm. parce que nit bu génnee àdduna. da ngay woo sapeur ñu ñëw police ñëw constaté. parfois nag ngay sàmm du question ñàkk jàngoo wala dara mais dafa am ñoo xam ne sama mbokku maam yi parce que dañuy doxal de de de trop. Mm-hmm. ñi nga xam ne ne suñu mbokk sama maam yi ñu xam ne ay futanke lañu li ñuy li ñuy li ñuy décider rek mooy comme ñoom ñooy kilifa lii am na amuñu kenn ku ñuy laaj. ñooy nijaay ñooy mag ci famille bi. kon décision bi ñoom ñoo ko war a jël parce que responsabilité yëpp parfois ñoom noonu lañ koy jëlee mm-hmm. amuñu kenn ku ñuy laaj dañuy def yëgle parce que ñi ci topp ñëpp dañuy dañuy joxe mm-hmm. dañuy dañ leen di rus ba dañ leen di jox benn benn benn mm-hmm. respect bi ba nga xam ne duñ leen wax dara peut-être noonu lañ ko kiiyee ñooy mag ñooy décider mais loolu moom wax dëgg yaa rafetul nit ki moom ci euh, côté bu mu mën a deewee rek nga ñëw fekk mu nelaw yeewu lépp oh. woolu yoon woo sapeur woo euh, docteur ñu xool ko balaa nga cee jëbla ci wàllum denc les temps ont changé parce que même accident sax boo ko defee police xam ne lii accident la sapeur tee dañuy def autopsie. Mhm. du tee aussi tam dinañ la bindal certificat de décès. kon donc seen nijaay ji xëy na mhm. dafa juum mais dafa waroon jaar fi.